برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجلفيد تيجان جخن نينان الأمكنة جمع مكان بل وخي أمكنة جمع لك jamaa moy lu bari makkaanun moy benn ba makkaanun barab nga bëgg wax ay barab am ci na ngay wax danañ wax amaakin ba tey waaye wax yii am ci na la génnee kon fan la arsu makkanu leet bii yow yàlla dajal nga ko mboolem gox yi mboolem barab yi kon barab yi yàlla feesal leer bi yan barab la xaras bi ngeen di dégg makkaan la wal kursiyu makkaanu makkaan la wa samawaatu asamaan yi juróom-ñaar makkaanu makkaan la wal araadi suuf yi juróom-ñaar makkaanu moom it makan la wa maa taxta saraa li nekk ci ron suuf boo demee ba suuf fa mu yem la ca ronam بقية المكان المكان لك كل هذه الأمكنة بوني بربيلك ملآلة بقدر ما تستطيع له وتأخذ من نور الله لامع ويبقى النور نورا فاتعا لامعا حائجا بأمكنة المكان كامل الإحاطة لا فراغ فيه لكن دفع mbooleem barab yi barab bu nekk nag kem lam ca àttan mën koo dékkandu rek la ca dékkandu waaye leer ga des rek leer ga des di leer gi def di leer boo xam ne nag mu ngay def di melax di xotti mbooleem barab bu lëndëm di daj mbooleem barab buñ naan barab la daj nag goo xam ne du bàyyi benn rukk boo xam ne dañ naan leer gi yeggu ko jant bi bu génnee mun na am ay barab ceneeru jant du fa yegg leeru jant du fa dugg waaye leer bu yonent bi moom bàyyiwul benn barab bu mu duggul kon nag leer la goo xam ne fees na ci am fii na fii makaan bàyyiwul benn barab wa haada nuur innama huwa nuurun ala nuurin yahdi llahu li nuurihi man yashaa والله ذو الفضل العظيم لير جي لير لا سي كون لير رك يالا ديبل سي لير نك كو سوف ندخ يالا موي بروم گنالي كيغا خامني كو مات لا موي گنالي اي جامم سي كو جي انا نينن ني di ñëpp jot leer ci waaye ñi nga xam ne mutaxaroon ñu labal lañu ñoom da jot nañ leer bi xam nañ leer bi ñu ngi dund ci leer bi yal na yàlla boole ci ñooñu nga xam ne muttaharuuna la ñu ñooñu ñooy arifuuna billahi wal ifdaalul akbar wallahu fi fadlil azim wal ifdaalul akbar mooy ci gënale itam gënale gu mag gi yénent yi gën ñu dul ñoom wulli yi ci topp gën ñu dul ñoom jullit ñee ci topp gën ñu dul ñoom ci biir yonent yi gënante am na ci biir wëli yi gënante am na ci biir jullit yi gënante am na kon yàlla mooy borom gëneel di gëneel ku ko sopp ci kaw ña ko sopp yal na yàlla jagleel ñu gëneelam yu mag yi ba ñu am cër ba gën a rëy bu ñuy am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam unzur kayfa faddalna baadahum ala baadin وللآخرة أكبر درجات وأكبر تحديدات القرآن من قملنا كنت أمنا مني سيطل يوم جانب نما كنا نين تكو نين شاد النبي تنك نيان كسي نين مجن نين قملنا الآخرة مؤفتي كنا نتبنك فلا درجة كنا ستنتين بلا أفراد وقت kon ku nekk ci àddina nga gis ku mel noo melul te nga bëgg a mel melokaan ba fexeel gaaw nekkalante yow ëppale ko àllaxeer ëppale ko ay may ci ëllëg nuy ëppalante nit ki nag ay mayu ëllëg muy gën a la taxaw ci jifee lu yàlla digle bàyyi rek lépp lu yàlla tere boo ko defee gis dana jot nga bokk ci ñu yàlla gënale benn bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa joxe benn tegtal ne ñi nga xam ne amuñu alal man di def li borom alal yi def wax sàngam buñ koy wax rek ñi def ci seen alal ñoom danañ am lu toll ni lool borom alal yam bu ci jégg wax ja ñoom it di ko wax ni ñi amul alal doon waxee wax ja ñu ñëw ci yeneen bi ne ko ah ñun kat la nga ñu jéeyoon ñu ko doon wax di ko jéem a d' abord ña ñu raw ñoom it kat yëg nañ ko xam nañ ko ñoo koy wax niñ koy waxee ñu leen ñëwee ah loolu de ngëneel la yàlla la yàlla koy jege ko ko topp kon daal yàlla du dañ di gënal a ñenn ci kaw ñenn ndax kat wallahu zul fadlil azim إنه تعالى جعل نوره اللامع نورا عظيما خفيفا لطيفا رقيقا يتسامع الخلق بخفافه ويتراءون بلطافته ويتداركون برقته وكل كائن في النور عالمه المخطر المسخر له يعيش وما للعيش من معنى حتى لا يحس بثقل جوله الحائف به يلا سبحانه وتعالى دفن الليرم بي مي ملخ مي لير دو خمي لير دو فسل دي لير دو مد وينك دي لير دو خمي كو ويخلق leer koo xam ne dafa ànd ak lutfu mooy kenn du ca xoolee ba sa bët di yàqu latifan waaye rafiqan leer bu sew la bu naqaree ràññee ak ngelaw li ngay noyyi ngelaw li ngay noyyi du looy gis waaye yëg nga ne mu ngi ànd ak yow une bés bu tànc woon li ngay xam ne لطيف مولاي نيوال لطف الله مولاي نيوال سمي نوية وعينا نيو قمنا كلمة جسي يتم كون كي لير جي لير لك بو مد بو ويف وعي بو عندك لطيف بو سيو يتسامع الخلق بخفافه مولي بندي نيو جي دقن جي جي ويفو لير جي may wax ngeen di dégg fan la wax mën a jaar ba yëg ci nopp wala fan la nopp mën a dégloo déggandu li may wax ci booyafug leer gi la wa yataraa'uuna bi lataafatihi ci lutfub leer bi ci la ñuy mën a gisantee nga xool sa bët may la nga gis la ngay xool ci leer gi lañ ko mën a amee wa kuuna bi riqatihi ci sewug leer gi ci son ci du nooy ci lay mën a làmbantee di daj boo làmbee di daj ci leer bi nga dajee loxo bi dina làmb de waaye ci leer gi lay dajee ni bët bi xoolee waaye ci leer gi lay gisee ni nopp bi dégloo waaye ci leer gi lay déggee bu taxuloon ak leer gi danañ dégloo lu ñu dégg danañ xool lu ñu gis danañ làmb di ñu daj kon kay leer mooy jëmm yërmande borom bi ci ñu wa kullu kaa'inin bépp aji nekk ju mën a doon fi nuuri alamihi al muxassas al musaxara la mbindeef bu mu mën a doon rek mu ngi séddu ca leer ga ca aalam ba mu nekk nga xam ne moom lañ ko jagleel tàggatal ko ca mu mën caa dund jëm mu mbindeef bu mu mën a doon rek fa mu nekk ca leer ga lay dundee fa mu nekk lañ ko tàggatal leer ga ñëwal ko ca kenn moom la mu toll wa wama lil aysi min maanan ànd ak it nag dund bi ñu wax ne lu nekk ngay dund ci leer gi dund ak sa bari te wute kon leer gaa ngi àndoog ñun حتى لا يحس بثقة جوه أم حائطة به لما ندعنا كبير فإن كنت أجد المنكفة بدو يجد فاي بكو تنج تلاغي بدم فإن كنت أجد المنكفة دنو يجد فاي بكو جنية كان دخما دخما لم يجد فاي بكو جنية مكونا لن دخما يتنجي سين بيسا سين لك بيسا دخما لنكفة waaye nit bu jëfoon dugg ci biir ndox dana yëg diisub ndox dana yëg na ko ndox ma tànkee waaye jën wi bu ñëwoon ci jaww ji day mel ni ñun buñ demee ci géej na ñu géej di tànkee mu yëg diisaayu ndox ma ñoom it noonu yëgee diisaayu jaww ji kon lu mu mën a doon dañ koo tàggatal fa mu nekk muy jot leer ga kenn dañ ca mën a dégg kenn xaaral yëpp mu وإنه إن خرج من بيئته المخصوصة المسخرة له يكون كحيوان غير الدرمائيين خرج من الماء jamono boo xamee ne lañ tàggatal géej ga génn ci géej ga ñëw ci jaww ji te binduñu ko mu nekk rab woo xam ne barma yi la du mën a nekk ci fii day dal di alako ni nga xamee ne li nekk fii bu demee ci géej gi lay alal ko buñ ko joxul lu mu tàggat la bu man nekk loolu mooy lan albarma yi mooy rab wuy mën a dugg ci biir géej dund ca ñëw ci biir géej gi dund ca rab boo xam ne fu mu nekk dund fa loolu la ñuy tuddee barma yi barru barri yun yi ñu boole ñaari baat yi yi kon am na ci rab ñoom baxri yun lañu am na ci yoo xam ne barri yun lañu am na yoo xam ne nag sarmaa yi doomu aadama nag la yàlla baaxe tàggatal ko lépp ba moom mën naa mujj doon sarmaa yi mu ngi dund ci jaww ji waaye mun nañ am loo xam ne may nañu ñu dugg ci biir géej gi dugg ci géej gi te duñ yëg ndox ma nam ñuy sancee mën a yéeg ci kaw jawoo ji dem ba ci asamaan yoo xam ne ngalaw li ñuy noyyi amu fa waaye ñu fexe ba dugal ko ci loo xam ne dañuy ànd ak moom ginnaaw ci jawoo jooju ni am yooyu kon doom aadama mën nañu wax ne moom la yàlla tàggatal lépp lu mën a doon kon mën nañ ko boole ci barma yi ci tàlleeku mayu yàlla ci moom وربما يتساءل إنسان مفكر ومدبر في الأمور كيف يسمع الحيوان في الماء وكيف يأتي إليه السمع الذي يسمعه مع ثقل الماء عليه دون آدم أبو أم كالتي خلات مبي من أم خلات جنب خلات نور مي خلات نواو نيت كده بلوكي تنبق مي جيجم داي تنجي نور من جيجم kon nag xayawaan bi ci rab wi ci biir ndox mi dégg na ko la ko dégg ñëwalee fan la dégg mën a jaaree ba mën ko yëg ndax ndox maa ngi ko tënc kon doomu aadama bii xalaat war naa mën a xalaat lii waaye tontu mooy ni lut fu ba yàlla ko sa ca aalam bu ko jagleel قد يتساءل الإنسان عن ذلك لعجز أذن إنسيته المجردة عن الطرح في الماء doomu aadama mun na laaj loolu ndaxte noppam bi nga xam ne moom lañ ko jagleel muy noppub doomu aadamaam bu àndul ak lenn luñ dimbandekoo ci matériel yi ñu xam tey du mën a dégg ci biir ndox ma kon bu gisee wax wa ci biir ndox may dund tey dégg war naa laaj kii fu mu jëlee déggam ndax gisul benn appareil bu nekk ca nopp rab woowa ci géej gi te mu ngay dégg kon borom xel nay laaj loolu lu xew bu laajee rek dana gis ne dekk yónent bi la dana gis ne aynu rahmati rabbaniyya la ñuy lu nekk ak alam ba mu nekk mu ngay jot ca leeru yàlla googu di yónent bi fam nekk la mën a xéewloo xéewal yi gis ak dégg qad yattas wa qad yatasaa'alu كيفية لقاء حاسة سمع بالحركة المسموعة بتيتم برم قل muy من mun لا di لي ديك lii dégg ci nopp naka هل الحركة هي التي تأتي إلى الأذن فتسمع أم الأذن هي التي ترسل حاسة سمعها إلى الحركة فتسمع doomu aadama buy xalaat boo déggee lu yëngu xalaatal waay ma leen nii sa nopp dégg yëngu boobu ndax yëngatu lii ma dóor moo ñëw ba ci sa nopp nga dégg ko wala sa nopp fa jot ñëw ba ci yëngatu bi dégg ko ndax kenn toog na ci yéen di laaj boppam lii man de dama koo laaj sama bopp amaguma tontum ba nag wala su ma ko amee daal mooy dama ne leeru yonent bi moo nekk ci lii yëngu nekk ci la war a dégg yëngu ba kon moo tàkkale mbir yi ba diggante amu fa moo tax dégg di dégg moo tax gis di gis su ma amee tontu lii mooy tontu kon dañoo dajee dajeeg lay dégg ak lay yëngu ñu war ko dégg dajeeg la ñuy gis ak lay war a gis ñu nga dajee woo ci ay rahmati rabbani ya ci jëm ñu ci bisla alayhi salam moom mi nga xam ne muy lëftu ndax kon diggante amul ca ñaar ya bu diggante amoon rek am lu tàkk إذا تساءل عن هذا فالتساؤل معقول ومقبول جدا للعجب الذي في السمع وباعتبار نفسه إن كان هو في الماء ويدخل عليه الماء كيف يسمع كم في لاج لمن mel لاجم laajam lu xel mën a nangu leen war ndax ci ndax bu fekkee moom bu nekkee ci ndox moom doom aadama du dégg la nekk ca ndox may dégg war naa laaj fu déggam ñëwee ci moom ànd ak ndox maa ngi ko téye tànc ko mu dis gann ci moom الجواب الصافي على هذا على li nga xam ne mooy tontu bu leer bi am daal ci laajantu yii المعقولة موي muy laajantu yu xel mën a nangu ne war nañ ko laaj al mustahsana di laajantu yu ñu rafetlu هو أن نور الله اللامع نعم الذي ملأ به كونه الحائط بأمكنة المكان هو نور وجود نبيه صلى الله عليه وسلم العظيم التي بخفته ولطافته ورقاقته إدراك حواس كل مخلوق سمعا كان او بصرا او شما او ذوقا او لمسا لأمدار موي لي موخ ليك لي موي سما تونت سي ميري موم رك كاي تونت با نك حقن موي ني ليرو يالا بيغا خامني دا فاي ملخ سي دج مبولم برات يي موي ليرو نيكو يونتام بي صلى الله عليه وسلم تي لير غوغو دي لير بو خامني دا فا ñiwet sew lool ci la mbooleem yëguwaay bu nekk di amee yëgam moo xam lay yëg nag xaasa la xaasa buñ ko waxee mooy lay dégg ci nit ka lay gis ci nit lay làmb ñuy lay tax ñuy làmb di daj loolu la ñuy wax xaasa kon mbooleem xaasa yi mbooleem xawaas yi mbindeef mu mën a doon xaasatu sameen la muy déggee xaasa xaasatu basar yi la muy gisee wala la muy fóonee muy xeeñ wala la muy mofes muy saf wala la muy làmbee muy daj mu ngi koy amee ci leer gii nga xam ne muy jëmu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon xawaasul xamsa yi yépp ci yonent bi lañ koy amee xawaasul xamsa moom la ñu wax les cinq sens mooy xawaatul xamsa lépp ci yonent bi lañ koy defee wa anna nuura huwa nuuru sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam leer bi mooy leer bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al musaxara li kulli kainin min al akwaani nga xam ne dañ koo tàggatalal bépp mbindeef bu mën a doon ci mbindeef yi kon ci ngay déggee ne yonent bi la yàlla yónni ci mbooleem barab ci mbooleem jamono ci mbooleem mbindeef ndax kat ak yonentam ku foog ne ndax mooy mu wax la nga waaru ca wax ja mu jeex dégguloo nekk lu mu mën a nekk nekkam ga yonent ak yonent bi moo fa yegg moo tax loola mën a nekk kon da nga dégg ne yéefar yi yàlla yónni na yonent bi ci ñoom nit ñi ak rab yeeg garab yeeg asamaan ak suuf ak li ñu xam ak li ñu xamul yonent ak yonent moo fa yegg moo tax loola mën a nekk nekkam ga wa kullun ala xasabi qabiliyatihi fi bi biatihi lu mu ca mën a doon nag mu ngay jot ca leer ga kenn moom la mu ca mën a jëkkandu rek boo xoolee bët mën caa gis kenn la mën a gis nga déglu nopp dégg ca la mën a dégg ci fiñ la tàggatal nag waaye lu mën a doon gisam déggam ak yëgam ci mbir yi du bokk ak meneen mbindeef ma dul moom na muy giseeg na muy déggeeg na muy yëgee mbir yi waaye amut lu dul gis amut lu dul dégg amut lu dul yëg lu ca nekk rek nag kenn lam mën a am ca aalam ba mu nekk ci gisam ak déggam ak yëgam wa ann hada nuuru هو النور الآتي لتعميم الرحمة الربانية في الدنيا leer gii dafa ñëw ngir yërmande yàlla daj ñépp ci àddina waaye nag wa taxsiisiha lil muminin al amilin salihaati fi l axira mu nekk it nag loo xam ne dañ koo jagleel ñi gëm yàlla tey jëfee yu baax yi ci àllaaxira ñu ciy amaat yeneen fay yeneen yool yu bokkul ak liñ ciy am ci àddina bi wa anna ayna hada nuur li am daal mooy jëmmu leer yii huwa sayidu alladi saada alwujuda wal akwaana awalan wa axiran wa axiran wa batinan leer gi mooy leeru ki nga xam ne sang la boo xam ne ak cangam daj na mbooleem lépp lu nekk mbooleem bindee fi mooy seen sang ca lu njëkk ca lu mujj ca lu feeñ ca lu nëpp moom mooy sang bi mooy sang bi nekkam bi sang bi ci la ñëpp di xéwloo ci moom alhamdulilahi xaq hamdi ala siyaadatihi lana ñoo ngi sang sant yàlla dëgg dëgg cant bi nga xamee ne yonent bi nekk na di sunu sang ñu yëg ne mooy sunu sang am na ñoo xam ne xamuñ ne mooy seen sang ba boo nee sayiduna muhammad sax ñu ne yonent bi bu sayidu yàlla rek mooy sayidu mën nañoo julli ci yonent bi de waaye allahuma salli ala muhammadin rek ngay dégg waaye ala sayidina muhammad doo ko dégg ci ñoom ñom xamuñ ne yonent bi moy suñu sang ñun nak ñu ngi yit ne moy suñu sang sa moy sangu adina bi moy sangu nek bi mooy sayyidul wujudi kii kay mooy sayyiduna muhammad yeenent yàlla yahya sax sayid la alquran neena na la alquran yi quoi wa sayidan wa hasura mu ne moom yonent yàlla yahya sang la bu yeenent yàlla yaxya mënee doon sang naka nag yeenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa doon sang kon ñee wax ne yonent bi du sang yalla ay sang ñu dellu ci wax xam ne yonent bi moy sang ñun ñu ngi sant yàlla bi ñu gene yonent bi moy sang alhamdulillah haqq حمده ala sayyidatihi lana اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كن ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمثلة المكان في جوهرة الكمال في كوي جانجي من كيول والي لي موا لن نلتي معناها أجلنين أجلنين أجلنين لو خمي كم اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروس الحقائق اللهم يا الله صلي جليل جكل وسلم مسلل جملل على عين الحق كنا قمنا موي جم دك التي جم دك كنا قمنا تتجلى منها عرش الحقائق عين الأراب بنكو جيجينل موتاخ من عين التي تتجلى الصلاة جوهرة الكمال تتجدد بجوهريتها في مد عين الحق والثناء عليه بأتم وجه وأبلغه لإظهار جمال صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال مظاهره بعد إظهارهما في في وصفه بصفته عين الرحمة وبصفته الياقوتة وبصفته النور الأكوان وبصفته صاحب الحق رباني وبصفته نور الله اللامع جوهرة الكمال mu بيتلات جلم jullim gi جوهر بي jawharum bi di tagg ki nga xam ne mooy ca nam gën a rafetee ca nam gën a jotalee ngir rek di feeñal taaram bu mat bi melokaanam bi nga xam ne melokaan la bu sell bu rafet la jawhatu kamal bu melokaan rek lay feeñal tey feeñal itam matu feeñam gi gannaaw bu nëbbu ca nëbbu googa ñu xam ca nëbbu gu nëbbu ga kon nekkoon na nëbbu feeñ li ko feeñal mooy leer bi kon jawhartu kamal mu ngi feeñal leer googa ni feeñee ci gi mu ngi koy melal ji wax ne mooy aynu rahmati rabbaniya jëmmu yërmande borom bi mooy unité mu ngi feeñal melokaanam ji wax ne mooy al yaqut wurus du yaqut la di feñal melokaanam di wax ne nurul akwan mooy leeru mbindeefam yi di feñal melokaanam di wax ne mooy saaxibil xaq rabbani borom dëgg gi nga xam ne ci yàlla rek la dëgg ga dellu mu ngi feñal melokaanam di wax ne mooy meloo melokaanu di leeru yàlla gi nga xam ne moo daj gox yi di leeral lépp nuurillahi daanee allahuma yow yàlla salli wa sallim naga julli naga jokku. ala ayni alhaq allati tatajalla minha urus alhaqa'iq yow yalla. fa salatu ak sa salaamu nanga ko def ci jëmm deug gi nga xam ne mooy moy mooy te ci moom la lepp lu naan urus alhaqa'iq hadina deug yi ci lay feñe defal ci moom salatu salam urus alhaqa'iq mooy adina deug yi defal ci moom salaatu ak salaamu wa ala alihi te def ko ci ñoñam defin boo xam ne nag xaqa qadri yi day toll ni dayoom wa miqdaari yi ak ak magayam al azim bu màgg bi nga def ko mu toll ni moom salaatan nga def ko muy julli goo xam ne di ko gërëm ba nga xam ne tuarifuna di nga ñu xamalee ñun bihaa ci julli bi iyyahu ki yonent bi ñu xam ne moom rek kay yonent bi ñu xam ne mooy suñu sang ñu xam ne mooy sa jëmm yërmande ji ci ñun yow yàlla may ni julli bi xamal ñu loolu ci moom al aynu wal xaqu bi masabati dati wa sifati bu ñu waxee al aynu wax al xaqu mu ngay wàcc wàcc waaye ñu ne jëmm ak melokaan fa al aynu mazharu dati jëmm ji mooy feeñ waaye nekk gi wal xaqu dëgg gi dalilu sifati mooy li tegtale melokaan bi kon aynu la ak xaqu aynu mooy feeñuwaayu jëmm ji xaqu mooy tegtale melokaan bi kama anna zahira huwa tajalil batini wal batina matmanu zahir ni ñu war a xamee ne ba tey buñ nee lu feeñ li lu feeñ li mooy tegtale lu nëbbu li ni nga xamee ni lu nëbbu li mooy làqug lu feeñ li kon lu feeñ ak lu nëbbu ni ñuy xamlantee aynu ak xaqunu lu ñuy xamlantee wa hada yadullu ala ittihaadi al amrayni اتحادا متينا كاتحاد اسم الشيء بالذات مسمى ليني ليرال داي تكتالي بنو بي ام سي نياري مبيري بنو عينو اك حقو بنو جيم جي اك نالوكانا بنو لو فاي لو نيب داي تكتالي بنو جي day tegtale ne bennoo la goo xam ne gu wér la gu dëgër la ni bennoo tur ak jëmm di nekkee suñu tuddee ne téere bii téere bii tur la lay tur bi ak lay jëmmu téere bi kenn mënatu ko xaajale bañ ne téere bii rek ma téye ko yëkkati loxo kenn du xool tur wa feneen di xool jëmmu téere bi feneen fa ngay dégloo tur wa fa ngay xoolaalee lay jëmmu tur bi kon ñi tur bennooyee ak la tudd aynu ak xàqu noonu benn bennooyee jëmm ak melokaanam noonu lañ bennooyee loolu dañ ciy jéggee nag ne al ismu yadullu ala zaat wa zaatu tadullu ala al ismu tur day tegtale jëmm ni jëmm di tegtale tur lépp lu ñu xam turam buñ ko gisee rek xel dem na ci tur wa luñ gisul itam buñ tuddee tur wa rek ku ko xam ku nekk jëmmën nga melokaanu loola méngale ko tur wa kon tur ak ñun tudd duñu xaajaloo ñoo àndoon wal aksu bil aksi itlaqan safaan ba itam noonu rek mooy li ma wax léegi buñ tuddee tur xel dem ci lay tudd buñ gisee luñ tudd la xel dem ci tur wa man rafa haza al ittihaad al ku xam bennoo gu wér gi am ci mbir yi حق المعرفة دقي دقي قمكو فقد عرف الأمر الذي يقصده خاصة الرجال وخاصة خاصتهم كل وقت بحركاتهم وسكناتهم الإعدادية وقم لي ما يجون دق دق خم دانا قم من نمبر ميقاي يب جبلو مبير ميقا خم نبرم جاك لي نيوكو جبلو نيوم يب تن واي ci bépp waxtu mu mën a doon seen yëngu ak seen dal ba nga xam ne dañ koy def ci ko tuddee jaamu yàlla lépp ci yonent bi la jëm wa hadihi ma'rifa almaarifa alxaqa turitu saaxibaha maqaam alwilayati al alxaq xam lii di ko dund day may borom xëyt ka xam di ko dund mu am maqaama bokk ci wulli yàlla yi nga xam ne yàlla luy dëgg li ñuy feeñ ca moom ba yàlla rek ay nekk nekkam la ndax wallaahu wal waliyu ku xam lii ba seey ci yàlla da nga mujj yëg ne nekkatuloo fa yàllaa fa nekk te yàllaa wax ne moom moo nekk di waliyu bi ndax moo wax ci alquran ne amit taxasu min dunihi awliyaa wallahu huwal ndax dañuy jël waliyu muy keneen ku dul yàlla yàlla nee na moom mooy waliyu bi kon ku xam lii di nga xam ne lii wëlliyullaahi buñ ko tuddee kooka dafay jóge yàlla des sax wëlliyullaahi mënul nekk yàlla di nekk dañuy bennoo rek loolu la yonent di wax sallallahu alayhi wa sallam dee leen njëkk ngeen di dee mooy gaaw leen jublu yàlla ba sey ci yàlla ba yàlla des di seen nekk yi kon dootu leen nekk loolay taxe bu mag nag ndax luñ tudd askane ku borom rek moomeelug loola day dellu ca kañ ko askane mbubbam diw mbub ma day nekkaatal diw jëmmu diw bopp diw loxoy diw lépp dañuy xam ne diwa moom loola kon loola ak diw dañoo bennoo kon nag buñ ne wëliyu laahi delloo nañ wëliyu bi ci yàlla moo tax yàlla ne kon moom mooy wëliyu wallahu huwa al waliyu kon xam dëgg dëgg yunent bi day loo nit ki mu am maqaama wilayatullahi lxaqa wa tuurituhu aydan al amni min al xawfi wal huzni da koy mayit mu am maqaama bokk ci wulli yàlla yi nga xam ne dootuñ cit dootuñ ragal ndax ku see ci lii ba yëg yàlla rek yàllaam bi Ci ak ragal fu mu lay jógee fi ndax ci ak ragal mooy nga gis lu bokkul ci yow wala ngay toog di séntu lu warul lu war a yegsi xamoon nu muy yegsee nga tiit ko nga xam ne dara nekkul kenn ke nekk yëgatul lekk lenn lu dul nekkul kenn ki kooku duutu tiit duutu ragal ñooñu nag ñuy wëlli yàlla kon xam yonent bi ci melokaanam yi ñu doon wax day may nit ki mu yëg loolu bokk ci wëlli yi nga xam ne yàlla wax na ne ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanun wëlli yàlla yi duñu tiit duñu ragal ndax tiit ak ragal muy gis leneen lu dul yow ku toog di tiit loxo maal tànkam ne dina jóg wéqu ko mbaa ku tëj ko kenn tiitu ko ci boppam de ndax yëg nga ne ci yow la rek ku yëgee nag noonu yàlla tiit ak ragal jeex na ci yow ndax gaynde ga sax da nga yëg ne cër la ci yow maqaama la xam yonent bi rek koy may nit alhamdulillah ngeen dégg ci li ñuy jàng ne nit ñi seen ëppalante mu nga ca gën a jege wante yàlla te jege yàlla kenn du ko am lu dul ci yonent bi nga ko amee kon ñuy jàng ku yonent bi dana may nit ki mbëggeelam ci yonent bi gën a yokk xamam yonent bi gën a yokk yeggam ci yàlla gën a gaaw gën a sell mbëggeelug yàlla ci moom it gën ko mën a may yeggam ci yàlla ak seey ci yàllaam am kon lii ñuy def bari na bu waay toogee di jaamu ci xeetu jaamu yeneen ya ñu xam ci kurus yi ci xeetu yeneen jaamu ya ñu xam ci naafale rakka ya ci xeetu yeneen jaamu yàlla ya ñuy wax ci yeneen i mbir toog di déglu lu ñuy wax ci yeneen ci bi gën ko màgg daraja lool kon lii ñuy def bu amé ñuy def yeen xétu jamu yalla ki def lu melni nii ngi koy bégalee né ko mu ngay am lu raw la ñëpp di am ndax ki aynu rahmati rabbaniya jëm yermandé borom bi kii yonent bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam mooy markazil fuhumi wal maani mom rek lañuy jang moy kan ak ay melokanam moy lan ci ñun kon ñoo ngi ci mom dolay nit ci muccam ci lepp luy lore nak moy na xam yonent bi sey ci yonent bi ba seyee ci yonent bi ci yàlla subhanahu wa taala bu ko defee mucc la ci loru liy lore wulli yàlla yi kat lii rek kay seen doole kon yàlla ñu yàlla may ñu doole woo ko al muhaqqiqu bi ma'rifati al haqa'iq al jami' al mazkura هو العارف حقا بكون سيد الوجود سيدنا بكون سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عين الحق التي تتجلى منها عروس الحقائق كي قم خم خم بي nga xamne moy deug deug mbot mi dajale lépp luñu tuddu ki moy arif bi bu ñu nee arif billahi ci xam lii mooy arif bi kooku moo xam dëgg dëgg xam nekkug yonent bi di sangug nekk gi di sangug àddina bi moom mi nga xam ne mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki xam yonent bi ci xamin bii rek kii moo séddu ci moom kii moo yëg ne yonent bi mooy sangam kii moo xam dëgg-dëgg xam naka la yonente bi nekkee ayn al xaq di jëmm yàlla wala di jëmm dëgg di jëmm dëgg la ñuy koy tekkee waaye allah huwa al xaq jëmm dëgg ji nga xam ne alati mi nga xam ne tatajalla minha rusul xaqaiqi ci moom la addinay dëgg yi di feeñee ki xam yonente bi ci xamin bii moo xam mbóot mi moo jot mbóot mi moo dund mbóot mi nga xam ne ku ko dund baax la nga teegal la kon al uruusu jamu arsin wa kullu aalamin arsun wal awaalimu kathiratun laa yuhiitu biha laa yuhiitu bima fiha illa allahu rabbul alamin buñ ne al uruusu urusul xaqaayiq bi ñuy wax urus baatu jamoo la mufrad ba mooy arsul urus arsu yu bari te aalam bu mu mën a doon ci awaalim bi rek arsul la te aalam yi nag bari nañ lool aalam yi bari nañ lool waaye mboolem aalam yi rek arsi lañu kenn du mën a dajal nag li ci biir عوالم يويو لدول يالا سبحانه وتعالى مومي خامن مو رب العالمين رب العالمين رك موكا عوالمي دا عالم بوم مانا دون كاي بورم عالم بوبا خم الله وأما الحقائق فهي الحقيقة الإلهية بني الحقائق نك mooy nekkug yàlla gi ci boppam xaqiqa la wal xaqiqatul muhammadiya nekkug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaqiqa la wal xaqiqatul ahmadiya nekkug ahmadu di wëliyu bi nga xam ne moo nekk njiital mboolem wëli yi wëli yi du jot ci péyu yàlla bi dara lu dul ci yonent bi la ñëw jógee ci yonent bi ñëw ci ahmadu ahmadu mii nekkam xaqiqa la wa qad tanaat bil xaqiqati al abdiya wal ismiya wal fi'liya dana ca topp nag ci xaqaayiq yooyu bu ñuy wax xaqiqatul abdiya ak ismiya ak fi'liya xaqiqatul abdiya ci xilaafa lañ koy fekk ak xaqiqa boo xam ne ay tur lañ cee xam tur lay doon waaye tur day jëmmoo jëmm ak xaqiqa boo xam ne jëf lay doon kon bu ñu waxee xaqaa'iq rek déggal yow mii xam baatinu mbir yi ne buñ ne xaqaa'iq jëmm yàlla ji xaqiqa la jëmm yonent bi xaqiqa la jëmm ahmadu xaqiqa la waaye abdullahi bi nga xam ne gannaaw buñ gisatul kañ doon tuddee ahmadu moo fiy nekk jamono bu nekk nekkam xaqiqa la waaye xamal ne ba tey ismu bi ci boppam xaqiqa la xamal ne ba tey jëf ji ci boppam xaqiqa la lan mooy ismu bi wala kan mooy ismu bi lan mooy jëf ji walla kan mooy jëf ji ay laaj la ku bëgg a xam lan mooy xaqiqa bi rek seetal xam ndax ismu bi تر ولا جم لا جف ولا جم وجميع عروس الحقائق تتجلى وتتكشف من عين الحق نور الاكوان الكنز الاعظم مبولي عروس الحقائق ني واخ ييب نك فيني ci jëmmu yërmande borom bi di yonent bi sallallahu alayhi wasallam te mu ngi ci jëmm dëgg ji nga xam ne mooy leer mbindee fi te mooy koom lu mag li nga xam ne mooy koomu ñëpp di kanisil aasa mu ngi feeñe ci moom kamaacate jalla nu juum wa tan kachifa fi sama i sofia ni ñu xamee ne biddiw yaa ngi feeñee ci asamaan soo xam ne xiirul niir yi muurul dara ci asamaan ci la ñuy gisee biddiw yi leer nañi nañ xam nag ne mbooleem xaqaayiq yi ñu wax ñoo ngi feeñu ci yonent bi yàlla yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bu niir ya muurulee asamaan rek ñu jano biddiw ya mu leer nañ ñi kon nag xoli doomu aadama yi nañ jàpp ne mooy biddiw ya waaye nëx nëxu àddina bu muuree xel ya rek dootuñ gis leer gii di leer bu yonent bi kon wax yi jëf yi jaamu yàlla yi mooy dindi niiru lëndëm yi ci biir xel ñu janoog leeru yàlla bi nga xam ne mu ngi fay ci yonent bi wala boog ñu ne ñu janoog jëmm yonent bi sallallahu alayhi wasallam loo ci wax rek waaw allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabi ala hadha an-nabi al-mubarak wa ala alihi haqq qadri wa miqdar al-azim salatan tu'arifuna biha iyyahu yow yàlla defal sa salaatu ak sa salaamu ci yonent bii nga xam ne ku barke la def ko ci ñuñam def bu tollo ak dayom ak darajaam bu mag bi fi yow yàlla nga def ko muy julli go xamne di nga ñu xamalé itam ci julli bi ki nga xamne moy jëm jëmmu yërmande ji di yonent bi sallallahu alayhi wasallam عين المعارف الأقوى اللهم صل وسلم على عين المعارف الأقوم وعلى آله حق قدره من قدر العظيم صلاة تعرفنا بها إياهم maa ngi boole lii jawharatul kamal ak lii njeexteel jawharatul kamal waaye dugal ca lay njeexteel itam salatul fatih li ma wax leer kon عين المعارف الأقوم بوخون اللهم صل وسلم على عين المعارف الأقوم وعلى آلها قدر مقدار العظيم صلاة تعرفنا بها إياه دفن الصلاة بمت بمت ndax aynil maarif al aqwam tudd nga ko gannaaw boo waxee salli wa sallim yow yàlla tudd ki nga xam ne mooy ki ñuy def ci moom salaatu bi nga ne yow yàlla salaatu bi niñ la ko ñaanee ci salaatul yi xaq qadrihi wa miqdaaril azim na ko def mu tolloog moom waaye na ko def mu nekk salaatu boo xam ne tuarifuna bi iyaahu kon yeexteel salaatul fatih lay indi jamono bu nek ak njeexteel jawharatul kamal ngeen dégg loolu ndax barket ñaari nekkal ñu fu jange len ci mom rek العين المسمات في مختلف الموادع في صلاة الجوهرة هي ذات النبي صلى الله عليه وسلم jëmm ji nga xam ne moom la ñuy tudd jamono bu nekk ci barab yu bari yu wute yi ci julli jawatu kamal mooy jëmm yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam wal maariful aqwamu bu ñu waxee nag maariful aqwam xam-xam yu jub yu sell yu dëgg yi هي معارف الأنبياء ومعارف العارفين ومعارف الأولياء المنطوقة منها والمكتوبة والمكنونة في صدورهم البهور والأواني وتهتدي بها الأمم بإذن الله فني تدرك معارف من خمنا موي خمك يوننتي موي خمك عارفين بالله موي خمك ولي يالله xam yooyu nga xam ne ñoo ngi koy tudd ci làmmiñ yi walla ñoo ngi koy bind ci téere yi wala ñoo ngi ko nëbb ci dënnu góor yi dënnu góor yi nga xam ne ay géej la di ay yonent wala ay ndab la di ay wëliyu fu ñu tuddee maarif rek mooy xam-xam yi nekk ci ñu mag ñooñu muy xam-xam yoo xam ne mbooleem xeet yi ci la jubee di yegg ci li yàlla namm ba yónni yonent yi tafal ci ñoom wëliyu yi ndax yàlla wax ne yónniwul benn yónent lu dul dañ koy topp bi idnillah wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa bi idnillah yónniwuñ benn yónent ñu koy topp lu dul ne ci ndigalu yàlla lañ koy toppee kon kuñ topp rek ci ndigalu yàlla lañ la toppee kon kuy topp ku nekk ka mat topp mm. yàlla ko bëgg rek topp loo ko ka nga xam ne ku ko topp baax la kon ku xam lii da nga xam ne maariful anbiya yi xamub yonent yi maariful aarifina xamub aarifuna billahi ak xamub wëli yi yañ ca wax wala lañ ca bind ci téere lañ ca nëbb ci seen i dënn yiy dënn yoo xam ne ay géej la mbaa ay ndab la muy jubuwaayu mboolem xeet yi ci ndigalu yàlla اللهم صل وسلم على عين المعارف الأقوم قذالة الأمور والشؤون الإلهية منبع إمدادات الأنبياء والأولياء عين المعارف الأقوم هو باب الله الأكبر الأوسع الذي لم, لم يغلق منذ أزل افتتاحيته ولا يغلق إلى أبد بقاء الله مستحقا لرحمانيته ربانية ومتصفا بأسمائه الحسنى yow yàlla na nga def sa salaatu ak sa salaamu ci ki nga xam ne mooy jëmm mboolem lu naan xam-xam la di xam-xam yu jub yi nga xam ne mooy dencuwaayu mbóot yi mooy dencuwaayu liñ naan umóor mbir yi mooy dencuwaayu li ñu naan su'oon te ko ko doon firi ba tey mbir yi rek nga koy tekkee waaye umóor mbir mbir la su'oon it mbir la lan mooy umur ak lan muy shu'un lu ca nekk am na tekki ci góor yàlla yi ci beneen xeetu tekki nag bu dul mbir mbir rek kon mboolem umur ak shu'un yi nga xam ne yépp ci yàlla la mooy aynul maarif ak ko kon mooy dencuwaayu mbóot yi mooy balluwaayu mboolem tëbbug yonent yi ak wali yi te kat mooy jëmmu xam-xam yi itam yu jub te mooy bunt yàlla bu mag bi nga xam ne moo gën a yaatu ci bunt yi nga xam ne mosul tëju ci azal la ubbeeku woon te du tëj mukkit ba abat dafay des faw ubbiku rek te mooy li yeyoo mu am yërmandeeg borom bi te moo meloo itam melokaanu tur yàlla yu mag yi yàlla yu mag yi asmaulahi husna ki yore melokaan ba mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla tudd tur ya de waaye yonent moom melokaan waxa ngoogu yàlla moom tur yi waaye yonent moom melokaani tur yi yàlla may na yonent bi léppam lu dul ne yow yaay yàlla yonent bi kenn du ko wax yàlla yonent bi yonent la yàlla rek kay yàlla way yàlla may na yonent bi léppam lu rek mu wote ne man ma yàlla ku deg li nak deg nga lépp lépp hada al bab al akbar buntu bu rëy bi al awsa bu yaatu bi yabqa mutafatihan da fay def rek di ubbeeku du tëju mukk lutax لما يصدر منه من الإمدادات والبركات والخيرات والعلوم والمعارف الربانية إلا حيث يريدها الله في قلوب الأنبياء والأقطاب والصديقين والأولياء الشافعين المقيتين المنقذين الأمم الهادين المهتدين لي di مكي bu mag bi moom mooy feeñu waayu tëbb yi nga xam ne ni ñaa yiw yi xam-xam yi nga xam ne ay maarif lañu ak ak ulum yi nga xam ne ñu ngi koy am te di ko jëlee ci pays borom bi moom mooy balluwaay bi mooy balluwaay bi di yegg nag fu ko yàlla na mu tàlleeku yegg fa moo xam ci xolu ay yonent la wala ci ay xutbu la wala ci ay siddiqiina la wala ci ay wëliyu la wala ñoom ñi nga xam ne ñooy rëmmkat yi ñooy xettalikat yi ñooy muslekat yi musal mboolem xeet yi ñooy juble ñu jub ci yoon wa nga xam ne moom yàlla na mu mboole bindee fi di ci jub kon leer gii bunt ba muy jógee di ñëw ci ñii di yaatu daj ci mboolem xeet yi mënul tëju mukk bunt boobu dafay ubbeeku rek ci jamono bu nekk mu mosul tëju ca azal te du tëju ba abat day ubbeeku rek wa ida aradta ayyuhal hibbu aw fara haddin min aynil maarif al aqwam yow soppe bii may waxal te kum mën a doon ci kuy jàng téere bi kuy déglu sama wax ji na xam ne mooy soppe bi yow soppe bi boo bëggee cër ba gën rëy nga am ko ci ki nga xam ne mooy jëmmu maarifil aqwam ki nga xam ne mooy ayni madinatil ilmi mooy jëmmu ñeendil xam al ahsan njëndil xam-xam li nga xam ne peegu na aaru na dara mënu faa dugg di ko yàq boo bëggee loolu ki nga xam ne mooy ay kanzil ilahi al azam mooy jëm koomu yàlla bu mag bi yow mi bëgg li ci gën a bari nga jot ko faltafir ila kaamili asrika dawal dem ci ki nga xam ne mooy ki mag ci sa jamono يجب عليك أن تصبر نفسك معه لا لا يوار بوبا موي نغا فخي بو غا سا بوب اندوك كوكو وان لا تعو وان لا تعو دعيناك عنه بول فخي با خول سا بت فنن جوبالي كو سي كنن كودول موم امتثالا لامر الله تعالى القائل غير nga topé ko ndigalal yalla mi nga xamné mo wax né fa firu illa allah inni lakum minhu nadhirul mubin yalla wax né daw leen yéen ñi bëgg lu baax ñépp dem ci yàlla man kat maa ngi leen di waar waaraati wér ngeen xam ne la leen war ngeen mën ci amee mbaax mooy ngeen daw dem ci ku leen mën a xetti li ngeen yegg ci kanug yàlla wa ida farata ila allahi bi hada alfiraar alsadiq yow soppe bi may wax bu fekkee daw nga jëm ci yàlla ci dawin bu mag bii ma wax muy daw gu dëggu nag nekkul dawantu waaye daw gu dëggu la ci yow la budda annaka tajidu mushahadata alhaq bi maarifatika alkamila billahi allati li ajaliha xuliqa aljinnu wal insu su nekkee def nga lii ma wax la budda di nga am janoo ak dëgg ci sa xam gu rëy gi nga xam ne xam gu matale la gooy xam si yàlla te xam yàlla kat moo tax yàlla bind lépp lu mu bind di nit ak jinne boo dawee dem ci ki mat sa jamono rek daw nga dem ci yàlla bu boobaa di nga am maarifatu bii nga xam ne moo tax yàlla bind jinne ak nit wa bil firaari saadiqi ila kaamili asrika tajidu ayuha al fi asrai waqtin muraad allahi al akbar min xalqihi bu fekkee daw nga daw gu dëggu dem ci ki mat ci sa jamono ci ngay am yow mbokk mi may waxal dem bu gaaw bi nga xam ni moom la yàlla namm nit ñi ñëpp di ko dem ci moom yàlla te kat loolu la yàlla namm de ba bind mi defi ko def lii rek am nga loolu wa ahamu haajatin lil abdi fi fi xayaatihi te kat te kat li gën a nekk soxla bi gën a rëy doomu aadama di ko soxlawoo mooy na jublu yàlla ba yegg ci yàlla dund bi kat loolu rek la dund ngir bala dund di jeex nga yegg ci yàlla rek wa kullama ta'akharta an wujudi dhalika faltafhas nafsaka wa tamna'aha عن الهوى التي تتأله في الإنسان وتحرمه من الخير كلي الأبدي لكك نان صلوك أتفن دكي bu doon dañ koy def ngir def ko rek ma ne dee noppalu sax moo ci moo ko gën kuy dund ku nekk da ngaa war a dund aar sa dund bul faatu bul alaku ndax nga mën a yegg ci yàlla balaa dee di ñëw waaye bu doon dund ngir dund rek ak a bari coono jaru ko kon dañuy dund balaa dund gi jeex ñu yegg ci yàlla kon kuy dund yëgal ne yàlla kat bu la amalee ngir nga yegg ci moom moo tax mu amal la kon dawal dem ci ki mat sa jamono ndax nga mën a yeggee ci moom ci kandug yàlla bu fekkee nag ne yéex ngaa yég ci kennuk yàlla seet nga seet yég ne yaa ngi tegu ci yoon waaye yéex ngaa yég ci kennuk yàlla demal nga seetal sa bopp seetal sa bopp boo fekkee ne sa bakkan nag lay xiir ci yoo xam ne ay bànneexu bakkan rek la kon tereel sa bakkan boobu bànneex yooyu nga xam ne day yàlla yàllawu ci sa kaw te te ëllëhu fil insaan bànneex yi day yàlla yàllawu ci nit yi mel ni ah faltafxas na nga dem euh, gëstu ji sa bopp moom la ñuy wax consultation ci français ci jamono bi boo demee ci docteur muy seet sa feebar faxsu tibb yi lañ koy tuddee kon yow demal seet sa bakkan boo fekkee ne mu nga àndoog ay bànneex yu bari yu mu toggal nga xam ne kon moo dox sa diggante nga mën a yegg ci sa borom tere ko bànneex yooyu nga xam ne du dara lu dul bànneex yu yàlla yàlla wu sa kaw rek ndax bànneexu bakkan ci nit ki dafa mel ni yàllay boppam la moom itam nan jëmm ji defal li bul def li defal li bul def li kon mu ngay mel ni ku yalla yàlla wu sa kaw xeex ko nag nga tere ko loolu ndax nga am li nga xam ne mooy jàmm ju mag ju matale ji nga xam ne ku ko xas am am nga ko ba faw du ko ñàkk qaala taala yàllaa ngi wax ne araayta man ittaxasa ilaahahu hawaahu ndax doo seet waa ji nga xam ne day jël bànneexam def ko mu yàllam kon bul def bànneexi muy sa borom boo yéexee yegg ci yàlla rek delluwaatal sa bakkan nga seet bakkan ba lu mu lay digal boo fekkee ne ay bànneex rek la lay xiir xeexal ak moom def yàlla mi yàlla muy sa borom te bakkan bi nga rey ko ci lool al aya wa qaala ba tey yàlla wax na ne wala tattabiu ahwaa qawmin qad dallu min qablu wa abdalu kathiran wa dallu an sawaai sabil ba tey yàlla wax na ne bu leen di top banexu gaay yo xamne ne reer nañ ba pare reer nañ ci seen banex nga bëgg leena top kon da ngay réere rek bu leen top ñom reer nañ ci yag na te it nañ ñu bare bare bari te duñ deñ di reer ñu nga ci dig reer ga rek kon bu leen top yow mu bëgg yegg ci ni rek la di ci yalla set sa bopp ànd ak koo xam ne boo àndeek moom rek mom yegg na ci yàlla ba pare daf lay yeggale fam yegg ñetti le nga ca top nak ñu naan ko hikayatun waaye dal nañ taxawlu fi ba gëné yoon الحمد لله رب العالمين de moom la cheikh na ahmed tidiane di wax waxtaan di nga ca déggee waxtaan mën na laa may nga yegg ci maqaama boo xam ne doon nga jaamu yàlla junne at te jaamu nga du la may nga mën a yegg ci yàlla ci yeggin booba nga mënoon a yeggee ci dégg benn kàddu ci waxtaanu nit mu yeggalee ko mu yeggalee la ko ci yàlla kon ku ñuy waxtaan ci yonent bi moo xam gàmmo kuy gàmmo la te jubluwul ca gàmmo ga la ñu bari jublu ci seen gàmmu yi waaye dañuy gàmmu rek ngir wax ko yonent bi ku teewee gàmmu gu mel noonu mën na caa déggee lu mu gën a bëggee yonent bi gën a xam yonent bi gën a gaaw a yegg ci yàlla kuy déglu bu mu mën a doon di jàng téere bu mu mën a doon te di ci jàngee kii yonent bi mën na laa may nga gaaw yegg ci yonent bi ba seey ci kennu yàlla ma ne xam-xam de bu ñu naan baax na mu ngay baaxee ca mu lay wamat di la yóbbu ci yonent bi budul boobu rek duwul xam-xam ci góor yàlla yi kon nag ci lañ bindantu ci lañ waxantu ci lañ toog ak yéen di leen jàngal yàlla mi may ak dégg yàlla ñu may ak dégg dem ci yonent bi jafe na lool waaye yomb na lool ci jamono bii mm. nga xam ne xéwal yëpp tàlleeku na te mu ngi tàlleekoo ci yeneen bi ndaw yu bare ngi tey mm. raw nañu mag ñi bare bare bari te ñu ngi leen rawee rek kat ci am mbóot mu mel nii mbóot mu mel nii mbóot mu mel nii mooy lan watta bii sabila man anaba ilayya toppal ki xas yegsi ci man moom la ñëpp di gëstu koo gis mu topp rek mu ngay yaakaar ne ka mu toppi mooy ka yegg ba pare waaye ñi yegg ka néew ña yegg itam ña ca mën a yeggalee ka néew ña toppit ña xam la tax ñu toppee ka néew bu yàlla mayee nag tawfiq kiy topp xam na li tax muy toppee ka ñu topp yëg na lu tax ñu topp ko te moom ma toppee mën naa yeggale te ka ko topp neex naa wa mat yeggale tawfiix ci tawfiix la alhamdulilahi ci tool boobu góor ak jigéen nañu delluwaat di wax alhamdulilah dajee bi rek mbóot la barke la leer la gu ñu tëbboo ci ki nga xam ne mooy jëmm mbóot ak barke leer waaye rawatina nag wax jeeti rawatina xoolante beeg yëgante yeeg bëggalante yi bëggante yi am ci diggante yi loolu yëpp tëbbu la ci biir tëbbu nuurun ala nuur yahdi llahu li nuurihi man yasha alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله عين المعارف الأقوم وعلى آله وصحبه وسلم التسليما نجلسنا كتاب جوحرة الكمال في مدح عين الحق سيد رجاله جانغون نيو فيريم aynil maarif al lenn ca lenn ca maanaam tey ñoo ngi indi benn nettali boo xam ne day dëggal rek ne yonent bi sallallahu alayhi wa mooy jëmmi xam-xam mooy ki nga xam ne buntam ubbeeku na dootul tëju mukk mbollem yi wi yàlla yi ci buntam rek lañ koy jotee netli bi day deugal lenn ci lolu laqad xakka xikaayatan bayinatan waliyullahi alkabir المفتو عليه المكاشف عن بعد الحقائق الغيبية كشفا عظيما الصيدي عبد الرحمن الشامي رضي الله عنه benn góor yàlla di wëliyu yàlla wu mag wu yàlla ubbee ñi koy wax maftu alayhi maftu alayhi mooy ku yàlla xamal xam-xam boo xam ne ci xamleeg yàlla rek lañ koy xamee maftu alayhi ba ca gën a rëy nag mooy ku yàlla ubbee mu xam jëmm yàlla ji anamu loolooy ubbee ga gën a mag fathul qarib am na fathul mubin am na waaye am na fathu boo xam ne nag moom ëmb na mbooleem fathu yi mooy ku yàlla ubbee ci jëmmam ji maftu alayhi bu mën a doon rekk la muy xam bu cay wax wax ji wér lay doon ndax ci fi yàlla bi lay jëlee xam-xam nit mën naa dégg lam dégg njuum te am ca bu waxee wax ji juum mën naa jàng ci téere sax ka bind téere am lum ca juum buy nettali njuumte mën na caa am waaye que yàlla ubbee moom buy wax ci payub yàlla ba lay jëlee xam-xamam ku ñu ubbee mu xam jëmm ji mooy que ñu ubbee dëgg waaye danañu ubbewaat nit itam muy gis lenn ci yi nga xam ne jamono dox suñu digganteeg moom ba gisuñu ko lu mel ni li war a xew suba guddigee dox suñu digganteeg moom ba gisaguñ ko walla la nga xam ne mu ngay xaw ca barab sàngam bu sori ci waxtu wi ñu nekkee diggante moo dox suñ digganteeg moom ba jonowuñu ak moom ku yàlla ubbee nag mën naa gis la dox suñ digganteeg moom jamono ak la nga xam ne suñ digganteek moom la ca dox sori barab la mën naa gis lépp kon ka am loola moom lañuy ñuy tuddee almukashaf ka yàlla may mbir yi uñeeku ci kanamam kon ubbeeku jëmmu yàlla ji ci nit ki mu nekk arif billah am na waaye am na ñeneen yu ñuy ubbeewaat ubbe goo xam ne dañuy xam lenn ca yu fàddu ya nga xam ne jamono dox suñ digganteeg moom wala sariwaayu barab xam lay xew yowmal qiyaam xam lay xew ci aalam ya nga xam ne ay malaaka fa nekk wala ay yeneen i te bëtu doom aadama yii ñu xam xoolinam rek mënu fa yegg kon loola kasfu lañ ko tuddee kon waliyullahi bu mag bii nga xam ne mooy nettali lii ñuy bëgg a wax moom yàlla ko ubbee may ko kasfu muy janoo ak lenn ci mbir yu faddu yi muy ubbee gu rëy bu ko yàlla jegleel mu tudd abdourahman chami yal na yàlla may ko ngërmandem wax na fi ta'lifihi al musamma bi kitaabil asraar wax na ci téereem boobu nga xam ne mu ngi ko tuddee kitaabul asraar téere boo xam ne ay mbóot rekk a ca nekk noonu la ko tuddee indi benn xikaaya boo xam ne maanaa xikaaya ba radiyallahu anhu mooy moom dafa doxantu zaata yawmin tanazaha ذات يوم في عالم الأكوان ودور بصيرته إلى أنحائه لتعميق تفكراته وتدبراته في آيات الله الحكيمة دخلتنا تينا عالمي aalam قلم gisu xolam mu dawal ko ci lenn ca gox ya ngir xelaatam setantalam ci mbiri gën a mën a xóot mu mën janoo ak lenn ci kiimaan yi nga xam ne yàlla koy feeñal فلما وصل في تنزهه إلى عالم الكرسي رأى فيه أبوابا متعددة وكلها مصنوعة من اليواقيت والجواهر bam doxantoo ci aalam yooya du doxantub ay tànk nag yuy dem waaye gisuñu xolam ak ubbee ga ko yàlla ubbee ci lay janooyeeg loo xam ne ci lay doxantu ca loona ca xelaatam muy doxantu ak xelaatam ba yegg ci kursi yu bi ñuy wax alamul kursi yi mu gis fa ay bunt yu bari yoo xam ne dañoo ubbeeku te bunt yee ñoom ñépp dañ leen liggéeyee ci wurusu yaaquut ak wurusu jawhar wa qad balaga addaduha salaasa mia wa arbaa baaban limu buntu yam gis ci alamul kursi yi mat ñetti témèr ak fuk ak ñent ci ay buntu wa jamiuha muglaqa batatan illa baban wahidan minha wa huwa al-bab al-akbar albabu alakbar alawsa almunhadira minhu alkhayrat walbarakat walimdadat alrabbaniya bunt yi yëpp nga tëju benn ubbeekuwul ci lu dul benn bunt ba nga xam ne moo ci gën a rëy moom rekk ko ubbeeku waaye bunt ba ba mu ubbeekoo mboolem yiw yi barke yi tëbb yi nga xam ne mu ngi jógee ci borom bi mu ngay sotteekoo ci bunt ba wa tantasiru ila jamii jihaati awalimillahi bila inqitaain mboolem nag gox yi yiw yooyu di jógee ci bunt boobu mu nga cay tasaaroo xaytu la makaanan min al amkinati min al amkinati illa ammahu al inxidaaru wal insibaabu amul benn gox nag benn barab ci barab yi lu dul ne lay sotteekoo ca bunt ba mu ngay dem ca barab yooye ca gox yooye loolu la gis fa taajaba alsayidu abdurahman min hada al amr al mudhish walam yadri ma xaqiqatuhu ngëlmande ñëwal nako nak nag mu gis mbir yoyu ta xamul lan la xamul li moy deug moy lan deug deug wa baqiya fi ashadi dahshin wa awkadi hajatin ila ma'rifati haqiqati al amr wa lam yara shay'an maktuban ala al-abwab fa yastafsiru wa yastarshidu bihi gisul kenn ku mu laaj alam ba daal gisu fa kenn bunt yi daal la gis mbir yaa nga ca bunt ba ubbeeku na la cay sottee koo ngay sotteeku amul fu mu yegg ci àddina bi di fa sotti yiw yeeg barke yi ak tëbb yi te moom bëgg naa xam mbir mi lan la te gisul kenn ku mu ko laaj te gisulit benn mbind moo xam ne bind nañ ko ci bunt yi mu mën a jàng mbind ya xam lay mbir ya suma qaale fi nafsihi mattaxasa allahu waliyan jahilan illa allamahu mu yëg ne daal yàlla def na ko muy waliyum mu ah mu ne daldi mu daldi di dal rek mu dal ne li am daal mooy yàlla du am ak lu dul da koy xetti jamono bu nekk ci xam-xam yàlla daal du am waliyu muy tànn def ko muy kuréere mbir yi na toog rek mu yàlla dina ko xamal ثم تمادى السيد في تجوله الروحي إلى عالم العرش وإلى عالم الأمر حتى وصل إلى عالم الكروبيين ووجد فيه ملائكة لا يجهدون عن شيء مما في عالم الكرسي مويل دخنتم doxantum bi mu doon doxantu muy doxantu bu ورك rooxum عالم العرش ba yegg aalam ba nga xam ne aalamul amr la tudd ba yegg ci aalam ba nga xam ne aalamul kurubiyiina la tudd aalam la boo xam ne ay malaaka rek ñoo fa nekk mu fekk fa ay malaaka yoo xam ne ñoom réerewuñ dara lépp la leen yàlla xamal lépp lu nekk ci aalamul kursi yi rek xam nañ ko bal هذا معرفتهم كل ما في عالم الكرسي كما تهوز معرفة كما تهوز معرفة امرئ عدد أصابع يده وأشكالها كم من لب لنك عالم الكرسي نيغا خامي ني نيت بو اي بتم ليري موي اي بارامم دنا بارام بي malaaka yooyu noonu lañ xamee lépp lu nekk ci alamul kursi yi naka noonu borom baaraam yi dana xam baaraam yi loxoom wa ashkaalaha wa qudrata kulli usbu'in minha borom baaraam yi xam na kàttanu baaraam bu nekk ci baaraam yi itam kon malaaka yooyu noonu lañ xamee kursi yu ak lu fa nekk ak lu nekk lam féetewoo ci mën-mën فلما رأى الملائكة استفسر واستودح منهم عن حقيقة الأبواب الكثيرة المغلقة وعن حقيقة الباب الأعظم الوحيد في استقراره متفتحا مع ما يفيض منه من الفيودات الربانية bam leen gisee yëg ne xam nañ lépp lu xew di leerlu lan mooy dëgg-dëgg bunt bu mag bii bunt yi nga xam ne ñoom ñëpp tëju nañu ak bunt bu mag bi nga xam ne moom rekk moo ubbeeku la cay sotteekoo mu ngay sotteeku di ay tëbb yoo xam ne ci borom bi rekk la jógee mu daldi ko laaj malaaka yi فأجابوه جوابا صافيا بأن الأبواب الباقية في الغلق هي الأبواب إمدادات صائر رسل الله البالغ عددهم 313 نبيا صلى الله عليهم صلى الله عليهم الله بنبينا وسلم Thank you. gis na ne benn bunta ubbeeku mu laaj leen ñu tontu ko ne ko bunt yi nga xam ne gis nga leen ñoom ñépp ñu ngi tëju du ñetti téeméeri buntu ak fukk ak ñett yépp tëju nañu mooy yonent yi jiitu woon ñoom ñépp seen mbir dafa tëju lañ xamee woon ci yàlla daan ko xamal xeet ya loola tëju na loolu mooy bunt yi nga gis ñu tëju dootul tijjeeku mukk tëju na noona rek lay tëjoo bunt bi nga gis nag muy bunt bi gën a mag ñu liggéeyee ko ci wurusu yàquut bi nga xam ne wurusu sell la liggéeyee ko ba tey itam ci wurusu jawhar bi nga xam ne bu mat la te mooy biñ tuddee salaatu bi nga xam ne gis nga ne mu ngi ubbeeku te mu ngi des ci ubbeekum dootul tëju mukk fa huwa baabu xaatimil anbiyaai wa imaamil mursalina habibil xaaliqil mursali ila xayri ummatin uxrijat linnaasi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alladi bi baabihi in darasat أبواب النبوة الأنبياء وأبواب رسالة المرسلين وأبواب عزم عزمة الأولي العزم من الرسل حتى صار الإيمان به من بنت bunt bi ubbeeku mooy buntab ki nga xam ne mooy te mooy soppeek ki bind mbindee fi di yàlla yónni yónent yi kooku di soppe boobu nga xam ne moom lañ génnee def ko mu yónent bu ñëw ci gën ci xeet bu yàlla mosa feeñal ci xeet yi di yónent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ne bi buntam ubbeekoo rek la bunte yëpp tëj in darasat mooy lu far lu nekkoon ba ñu ne mu ngi tey far na kenn xamatul fu loola nekkoon mu ne bu mboolem buntab yonent yi yëpp noonu lañ tëjoo bi nga xamee ne buntab yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ubbeeku na mboolem buntab anbiya yi tëju nañu buntab mursaloona yi tëju nañu buntab ulul azmi mina rusulu tëju nañu ba nga xam ne gëm yàlla gëm yàlla goo xam ne yàlla dina ko gërëm nit gëmé ko yàlla ci diina topé ko ben yonent ci yonent yi amatul buñ mëna top ci yonent yi yàlla gërëm toppin boba luddul ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam rek lañ koy topé إنه صلى الله عليه وسلم للباب المصدر للإمدادات والخيرات والبركات إلى أمته خير الأمم المصدر للباب المصدر للإمدادات موم ينتبي صلى الله عليه وسلم بنتم بي أبيكم وي بنت بي قمني للباب المصدر للإمدادات والخيرات والبركات إلى أمته خير الأمم بنتم وي بي أبيكم بي قمني mbollem tëbb yi mbollem yiw yi mbollem barake yi ci buntam boobu lay ubbe ko jëm ci mbollem xet yi malaka yi xamal nañ ko ne ko buntu bobu ubbe ko lol la wa innahu sallallahu alayhi wa sallam la aynu la aynu alxaqi wa aynu rahmati ar rabbi wa siratullahi al-'azim al-qadr almuctabar alazim alqadr inda allahi taala moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jëmmu dëgg mooy jëmmu yërmandey borom bi te mooy yoon wu jub wi ñëpp di ñaan ci alquran yàlla jubal ñu ci yoon wu jub wi te mooy ki nga xam ne itam moom la ñu yëg yëg gi nga xam ne moom la nit di mën a yëgle yëgeeti rek baaxle kon mooy ki nga xam ne mom lañ yek mom lañ faale mbiram mom la mbiram di mbir mo xamné ci mom rek lañ mëna jubé muy ko xamné ku reuy dara jala fi yàlla subhanahu wa taala wa innahu sallallahu alayhi wa sallam lal muarrifu bi qimati al kanz al alazami fi iqamatihi al 'adl aladl waladala walamn walamana moom mom bi sallallahu alayhi wa sallam ci moom lañuy xamee lan mooy qiima lan mooy darajey kanzul koomuk yàlla gi nga xam ne azal la woon yàlla ba mu nekkee di kanz di koom ca azal ci yonent bi lañuy xamee kanz booba mooy naka te ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam la mën a taxawalee ak màndu ci moom lañuy ñuy mën a amee itam atte yi mën a tegu ci yoon boo xamee ne ku cay atteeti day am màndute te ci moom lañ mën a amee itam am na wal amaana wóolute ak garanti ci lépp loo nekk ne ngërmande yàlla nga ciy amee texeeg àddina ak àllaaxira lay jural ci yonent bi rek lañ ko mën a amee sallallahu moom mi buntam ubbeeku wa innahu lal mustaqimu fi ihsaanil axlaaqi wal ifa bil uhud te li am moy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku jub ki nga xam ne ci moom la ñuy amee jikko yu rafet ci moom la ñuy amé itam matal kóllëre yi lépp lu yalla santaane daal top yonent bi rek ci lañ ko mëna amé sallallahu alayhi wa sallam wa innahu sallallahu alayhi wa sallam huwa alladhi la hidayata ولا استقامة ولا استنارة في الدين والطريقة والحقيقة إلا به صلى الله عليه وسلم موي كيغا خامني كين ne kenn mënatul am ak jub kenn mënatul am tegu ci kenn mënatu am leer lu leerloo ci diina lu ko jubal wala ci tariqa wala ci xaqiqa lu dul ci moom rek nga koy jëlee yonent moom moom mi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal am dëgg sax mooy ni rek annahu sallallahu alayhi wa sallam lal baabu ladi la wusula illa allahi illa bihi kenn mënul yegg ci yàlla lu dul ci yonent bi nga yeggee lu tax li baqaa'i baabi nubuwatihi wa risalatihi maftuhan ala misraayhi li isbaalil anwaaril muhammadiya wal al ahmadiya wal barakaatil abdiya moom la buntam ubbeeku buntab nubawam yàlla def na ko mu nekk nëbbiyu buntab nubuwatam a ngi ubbeeku waxtu wu nekk buntab risaalatum mu ngi ubbeeku ubbeeku goo xam ne nag ala misraihi ñaari wàlli bunt bi buñ waxee misla ay baab mooy ñaari benn bunt bi nga xam ne ñaari wàll la da ngay ubbi fii ubbi waat fële mu gën a yaatu ñaari bata ñaari bataam yaa ngi ubbeeku ngir leer yi nga xam ne mooy leeru péew yonent yàlla muhammad man caa génnee ak barke yi nga xam ne mooy barke péew ahmadiya man caa génnee ba ak yi nga xam leeru yonent bi man caa génnee yiwi ahmadu man caa génnee barkeeb abd man ca abdi maqaamab abdiyatu man caa génnee wa bihi sallallahu alayhi wa sallam kunna nahnu al umma la nuadabu ma dama fiina wa nu'minu bihi moom yonent bii buntam ubbeeko mooy yonent bi nga xam ne fépp mu ngi ci ñun rek ñu koy gëm yàlla du ñu mbugal moom rek la buntam ubbeeku leeru péeyub muhammadiya ci moom rek lay génnee waaye barke yi jóge ci péeyu ahmadiya ci moom rek lay génnee yiw yooyu jóge ci péeyu ahmadiya ak barke yi jóge ci péeyub abdiya péeyub xutbu ci moom rek lay jógee kon da ngay yëg ne ndekki ahmadu bi mu ñëwee mënul nekk ci lu dul lislaam waaye ndekkee abdu bi nekkee ci xalifaam gi nekk yore xutbaan yëtu mënul nekkee lu dul moom itam ci pays yonent rek kon yonent rek la kon fekk ñun ñoo ngi nekk ak yonent bi yàlla du ñu mbugal wala nuadabu kadalika ma dumna nastaghfiru allaha wa yastaghfiru lana fekk ñoo ngi des ba tey itam di ballu yàlla yonent bi di ñu ballul rek ba tey yàlla du ñu mbugal mukk kii kay buntam warul tëju moom rek moo war a tëjeeku qaala taala yàlla ngi wax ne maa kaana allahu li yuazibuhum wa anta fihim wa maa kaana allahu muazibuhum wa hum yastaghfiruun yàlla nee na yàlla du mbugal mukk xeet wi fekk yaa ngi nekk ci seen biir yow yonent bi te sax bu amee ñu gis ne di nga jógee ci seen biir yàlla du leen mbugal fekk ñoo nga des di balu kon ñu déggee ci ne ndeke yonent bi moom du jog mukk di àndoo xeetam bi jamono buñ gisee ne faatu na it sul nañ ko ka foog loola na xam ne am na benn pays boo xam ne buntam ya ubbeeku na ñoo ngi cay baloo yàlla suba ngoon fekk ñoo ngay balu rekk yàlla duñu mbugal ba tey kon péeyu ahmadiya du lu tàlleeku péeyu muhammadiya ci lii di ngeen ci déggee ne ndeke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak feeñam yërmande xeet wi lépp la ndax fi mu ngi nekk ak nit ñi yàlla du mbugal nit ñi bu njëkk lépp lu ay xeet daan def ci xeet mooy yàlla yàlla daf leen di mbugal ci saa rek wëlbati suufee ci seen kaw sotti leen taw yoo xam ne seen lépp a yàqu toog ba mu yàgg benn niir tiim aw dëkk rek sotti leen mbugal lu nekk ci xeetu mbugal dañ ko daan gis yonent bi nag bi mu ñëwee bakkaar yu bari ci xeetam taxatul yàlla alak leen yàlla nee na fépp yaa ngi nekk ñoom rek duma leen mbugal duma leen alag la daan feeñ ca njëkk ña te sax de waxuma sax féeg yaa ngi ci seen biir rek yem ci waaye féeg ñoo ngay balu yàlla rek duma leen mbugal kon dañ cay déggee ne ña jàpp ne bi dem na ca muhammadiyatum ga des na ci tàlleekug wilaayatu ci ahmadiyatum gi nit ñaa ngiy baloo ci moom ku jël ci moom wirda rek yaa ngi def astaghfirullah ba nga xam ne yàlla nee na fekk yaa ngi koy def rek du ma la mbugal dégg ngeen junj bi kon alhamdulilah ci des ak yonent ak ñun waaye alhamdulilah ci des ak listixfaar nekk ak ñun te jógeewul lu dul ci moom rek wa وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة العزيزة التي لا تندرس بطول الزمان لكونها محفوظة كل الهبز تحت رعاية الله ووقايته المانعة نين قمني ينتبه صلى الله عليه وسلم موي برمك ينتبه تدقين قمني أك ينتم دفر مك لا تندرس دفر مك yàgguk jamono jamono du yàgg mukk ba nga gis lii di yónent ak yónent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam far lu tax ndax dafa di ak yónent goo xam ne yàlla ko wëttu bépp ak wëttu sàmm ko ci càmmam gu mag gi aar ko ci aaraangeem kaaraangeem gi nga xam ne lum ca aar loola terewu na ci yàqu yàqu du ca mën a jaar mukk la hatta la yastatiu خلق أيا كان في مختلف الأمكنة والأزمنة تطليلنا أو تحريفنا عامة بتبديل شيء من قرآننا الكريم أو تغييره ولو شكلة واحدة من أشكاله لأمويني yàlla wëttuna yonent ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba nga amul kenn ci mbindeef yi ci mbooleem nag barab yi ci mbooleem jamono yi ku mën a réeral xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu téere bii nga xam ne mooy sunu alxuraan ku ca mën a soppi dara benn masque sax kenn sañu ko caa mën a génne yàlla wëttu téere bi ci wutu boobu kon ba mu téere bi rek la wëttu xeet wi wala ba mu wëttoo xeet wi la wëttu téere bi kenn mënu ci soppi lenn seetal nag am nañ yàgg a jog bëgg a xeex jullit ñi bëgg leen a xeexee ci alquran ne dañuy bëgg a soppi alquran waaye mënuñ ca dara loolu wëttug yàlla gum wëttu yonent bi wëttu yonentam gi wëttu xeetam bi lañ ko amee hada li anna allaha subhanahu wa taala munazziluhu wa haafizuhu li himayati ummati habibihi sallallahu alayhi wa sallam li lépp nak lutax ndax yàlla mo wacce téré bi te moko ko ngir ar xetu ki nga xamne moy sopem bi yunus yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam unzur ayyuha ayuha al aaqil raaka allahu kayfa tamma xifsu llahi wa xifzuhu alquran alkarim في بعض قلوب أولاد كبار المؤمنين حتى استطاعوا بتيسيره لهم حفظه في عقولهم وعرضه بألسنتهم وكتابته بأقلامهم على وفق ما نزله على نبيه ورسوله وحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دون نظرة إلا مصحف ميل قري يوم أمكال ستن mi ستن تلال يلا يلا سامنا seetal rek ni nga xamee ne noonu la yàlla wëttoo téere bi di alquran wëttu gi mu ko wëttu seetal rek ni mu ko dugalee ci xolu lenn ci doomi ñu gëm yàlla ñi doomi jullit ñi mu may leen ñuy mokkal alxuraan yombalal leen mokkal gi ba mu mën a des ci seen biir xel yi bañ mën ko di jàng ci seen làmmiñ njàng mu rafet man ko di bind seen i xalimba mu dëppooyee ak na nga xam ne noonu la ko yàlla wàcce woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kii soppeem seetal ma may gu rëy googu rek am nañu ko mokkal man ko wax man ko bind te duñ ca yàq dara nam ñëwee woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam